salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu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 صلاة وتسليم مع البسر سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد شكورا بعد همد مقلد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 barke borom Touba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi góor jigéen mag ak ndaw ñoo ngi yëkkati nuyoo bi gën a tedd ci lislaam mu di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw ba leen nuyoo ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax tardement yi nga xamante ne euh, am na ci waaye lépp euh, jaam ak dogalam jaam ak pexeem waaye yàlla ak dogalam loolu moo tax ñu xaw a yéex a tàmbali liggéey bi kon bu ko defee dañuy ñëw rekk tàmbali liggéey bi suñu kilifa yu tedd yi nga xamante ne ñoo jóge ba Tuubaa di daayira muqaddimatul ma eh, ànd ak délégation bu takku ñëw fekk si mbooleem treize daayira yi nga xamante ne ñoom la ñu séqal liggéey bi ci jumaay Touba kon kon kon dañuy daal di jublu rek euh, ci présenté ñi nga xamante ne ñoo fi teew muy délégation bi jóge Touba muy daayira Muxaddamatul Xidma bu jumaay Touba ci njiital sëriñ Fallou Mbacke Touba euh, ànd ak sëriñ maxtar kan ànd ak Serigne Cheikhouna Mbacké ànd ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Afia ànd ak Serigne Cheikh Abdou Bousso ànd ak Serigne Ahmadou Mbacké ànd ak Serigne Fadilou Mbacké Ndiogou ànd ak ànd ak Serigne Cheikh Abdou Abdou Diatara ànd ak sëriñ Abdou Samad Lum ànd sëriñ Afia Bousso ànd tamit sëriñ Fadilou Fall ànd sëriñ Mor Fall ànd tamit bàcc caméraman bi nga xamante ne moom lañu ñu àndal ànd tamit sëriñ Modou Ndiaye ànd ak sëriñ Fallou Samb ci soxna yi ñi ngi ànd ak soxna Anta Gay soxna Astu Gay ñi ngi ànd ak tamit soxna soxna Awa Njaay kon ñooñu mooy délégation yi nga xamante ne ñoo jóge Touba ci njiital sëriñ fal yu euh, ci njiital sëriñ Fàllu Mbàkke ñi ngi leen di dalal bu baax di leen jaajëfal te di leen siyaar bu baax a baax baax ci njiital sëriñ Fàllu Mbàkke kon xam naa bu ko defee dañuy ñëwaat rek ci présentation daayira yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew daara ji nga xamante ne mooy xidmatul xadim eaux ñoom ñooy mbooloo mi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo waral bis bi jëwriñ bi di sëñ Babacar Cissé di di jëwriñu daara ji Abo Saw di vice président bi ki nga xamante ne mooy xaadim Rasoul Fall di secretaire général bi bu ñu ñëwee ci daayira yi fi teew ak seen i jëwriñ ak seen mbooloo ilhaamu latiful xabiir ci njiital suñu baay baay Assane Yadd ñu ñëw ci safinatul amaan caaroy sëriñ Modou jiite ko muxaddimatul xidma Dakar Louga sëriñ xaadim taysiir jiite ko moomit it mbooloom mi ngi fi mu xaddimatul xidma tuuba moské xidmatul xadim mu xaddimatul xidma section Dakar jëwriñ Jibril Diouf jiite ko moom it mi ngi fi teew ak mbooloom xidmatul xidmatu rawdu Balla juuf jiite ko moom it mi ngi fi ak mbooloom xidmatul xadim section mbuur sëriñ Saliou Ñang mi ngi fi teew ànd ak tamit ak délégation xidmatul xadim yëmbal Serigne Gora Saw moom it mi ngi fi teew ànd ak mbooloom ma juma Jinaan Dakar sëriñ Njàmbe Njaay jiite ko moom it mi ngi fi teew ak mbooloom daaira Fatxul Xafaar ñoom ñi ngi fi teew ak seen mbooloo ànd ak seen jëwri Masalikul Jinaan prop ñoomit it ñi ngi fi teew ànd ak Bamba Silla ak seen mbooloo ñi ngi fi teew plomberie du senegal ñoom it ñi ngi fi teew ànd ak seen ànd ànd ak seen jëwriñ sëriñ moo du Sall waa daayira Wakana Haqqan ñoom it ñi ngi fi teew ànd ak seen jëwriñ kon ñooñu ñooy mbokki taalibe yi nga xamante ne jëwriñu daayira yi nga xamante ne ñoom la ànd liggéey bi ci ndigalu daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi leen di bu baax di leen dalal ci turu ci turu daayira xitma eaux fore bi nga xamante ne ñoom ñoo yor parc Hann maanaam euh, ànd ak ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma liggéey bi loolu moo waral daje bii ñu daje fii di ñaan yal nañ ci dajeeg tawféexu Serigne Touba yal nañ ci dajeeg ngërëmal Serigne Touba yal nañ ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim te eggalee ko alhamdulillahi rabbil alamin te daje ceeg ngërëmal Cheikhul Khadim di ñaanal cheikh Mouhamadunil Muntaqa yàlla suñ borom yàggal ko fi kattanal ko te wéral ko mu ànd ak ñun ay ati ati at ci màggal yi noonu lañ koy ñaanalee Serigne Modou Mbend di ko ñaanal Serigne Afia Bousso imaam mi nga xamante ne moom mooy kilifa daayira muqaddimatul xidma di ko ñaanal yàlla suñ borom bàyyi ko suñu kanam te yàggal ko fi lool ak ñii nga xamante ne ñoom la ñu àndal muy muy daayira muqaddimatul xidma bi nga xamante ne sëriñ fàllu mbàkke Touba moom moo ko jiite ànd ak délégation bii ma lim sànq ñu ngi leen di ñu ngi leen di dalal di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal tànk yi ngeen ñëwee ba tànk yi ngeen di delloo képp ku fi ñëw tànk yi nga ñëwee ba tànk yi ngay delloo yàlla na lépp di ngërëmal sëriñ Touba kon ñoo ngi dellu di santaat ñëpp di di jaajëfal ñëpp. kon gannaaw gannaaw ba ñu dalalee gan yi. kon dañuy jublu. ci ñi nga xamante ne ñoo war a jël parole ci wàllu liggéey bi sëriñ xaadim mi nga xamante ne moom mooy jëwriñu eaux et forêts secrétaire général eaux mu ñëw dalal mbokki taalibe yi sëriñ Amdi Moustapha moo war a jël kàddu kon bu ko defee ñu tàmbali liggéey bi kon sëñ xaadim mën ngaa ñëw aouzu billahi min asheytaan irajim asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq ci coono yi nga xamante ni mbokk taalibe yi daj nañ ko ngir bés bi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëriñ sunu kilifa gi toog di sëñ Fallou mbokk mbooloo mi mu àndal yépp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di yëkkati kàddu gi ci ndigalal jëwrin mi nga xamante ni tey moo jiite daayira matul xadim bu eaux et forêt moom nag yàlla daa dogal mu nekk ci àll bi di waajal journée reboisement mu joxoon ma ndigal ne ma su mbooloo mi ñëwee na nga leen dalal euh, sant leen gërëm leen ci li nga xamante ni tey defal nañu ko ah, li ñu mbooloo mi defal nag dafa rëy ci ñun ndax dañuy ay taalibe Sëñ Tuubaa bëgg Sëñ Tuubaa nekk ci di ci góorgóorlu waaye yéen ngeen ñëw renforcer ci ñun loo xamante ni tey mënaluñ ko woon suñ bopp mooy ngeen ñëw boole ñu ci liggéeyub sëñ tubaab yi te loolu ku ñu ko defal ku ne desee la dara ci sëg sëg sëg dund moo tax ñu leen di sant di leen ziar di leen ñaanal yàlla lii ñuy wax nag suñu xol lañ ko tibbee parce que dafa rëy ci ñun day cër boo xamante ni tey yaakaarun ci suñu dund ni dinañ ko am kon bu ngeen jógee sol seen daal boole ñu ci liggéey bi nañu ñëw leen ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ci fan koy liggéey it mu nekk foo xamante ni murid yëpp fa bëgg a liggéey ngeen boole ñu ci amatuñ lenn lu dul def lu dul di leen sant di leen gërëm yal na leen sëriñ bi fayal boppam ñu ngi leen di dalal di leen ñaanal yàlla képp koo xamante ni ñëw nga fi yal na la sëriñ Touba téyel boppam kàrt na la ñëpp delluwaat ci jàmm ak salaam yal na ko sama borom def defal ko mbooleem jëli kontaan nan lool wax dëgg yàlla Euh, li ci des na dañuy bàyyi seen xaadim mi mu àggale ko ñu ñu kenn ñu ngi jégaluwaat bu baax kàddu yi ñu yëkkati jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim. wa inni auzu bika min zurriyataha min aseytaani rajim rabbi auzu bika min hamazaati sayatin bismillah barki borom tubaa ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di jaajëfal ñëpp waaye booy dugg ci bunt da ngay tàmbalee booy dugg ci néeg dangay ngay tàmbalee ci bunt bi kii fi teew di sëñ Fàllu Mbàkke di suñu kilifa suñu jotaay ci jotaay bi mooy suñ suñu kilifa mooy bunt ci seexul xadim tey ci jotaay bi ñu toog kon ñu ngi koy jox wàccuwaayam muy jottali ñu ko mbokk taalibe yi fi teew ñëpp ñu ngi tuub nag di yëkkati kàddu dafa mënta ñàkk rek waaye bu kilifa yi xasee wax ba pare waratuñoo yëkkati kàddu waaye ginnaaw ndigal moom jëfe rek la sant ah ñu jéem a fexe rek di sant ki ci njëkk ki nga xam ne bi ñu tàmbalee daayira bi ba léegi eh, ñoo ñu jàppale bañ yegg si fii ki ci jiitu mooy sëñ Muntaxa Mbàkke ndax xidmatul xadim ci moom la jóge ndax moo ñu jox tur wi dañu di ay taalibe nekk ay homme de tenue nekk ay soldat bu ñu liggéeyee ba wàcc dafa am beneen activité bu ñuy def mooy ay jullit lañu ay murit lañu am fu ñu bokk ñu tànn nag comme ay murit lañ ay jullit lañu dañuy liggéeyal sëñ Touba waaye liggéey bi ñuy liggéeyal sëñ Touba am na ñu ñu ko dàq fuuf ëpp ñu ay jumtuwaay bu fekkee génnee àddiyee joxe am na ñu ñu ko dàq fuuf bu dee ñax am na ñu ko dàq fuuf waaye ñun li ñuy liggéey muy wàllum garab ñun ñu jël ko sasoo ko ngir liggéey ko ci yoonu sëñ Touba muy ci dëkk bu tedd bee di Touba. lii moo ñu tàbbal ci liggéey bi bañ ko tàmbalee nag dem nañ ba ci sëñ bi moom moo ñu jox ndigal ne def leen ko jox ñu tuddee ñu xidmatul xadim kon ñu ngi koy sant bu baax di ko këram di sant sëñ Abdou Karim bu baax ndax moom it jàppale nañu ba tax ñu yegg si fii di sant sëñ Amsa bu sëñ Abdou ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax am na jafe yu ñu fi amoon daayira xidmatul xadim Eaux et ba ñuy doog a tàmbali dañ doom sol te ni di wax jërëjëfe sëñ tubaa di liggéey sëñ tubaa ndax xër gi ñu xër ci yoon wi waaye am luñ ci dab te ñun amuñ ci woon digal pour def ko moom ñu gis taxawaay bi mu ci amoon moo kilifa yu bëri sëñ Abdou Akram Mbacke ñu ngi koy sant bu baax heure bu ñu demee Touba gis nañ taxawaay bañ ñuy defal di sant sëñ sa Jaalibatu ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax waaye tey ki ñi war a gën a sant mooy sëñ Abdoul Ahad Bousso ndax moo jël téléphone wooñu ne yéen kat gis naa ni Pastef bi ngeen def ci dëkk bi su ma sañoon ngeen ñëw ànd ñun liggéey bi liggéey bañ njëkk a def bañ demee Touba mooy ñëw yeesalaat tàndarma yi ci jumaa ja moom lañ fi njëkk a def ñu def ko mu joxaat ñu ndigal ñu dem bàq ya def fa ay garab bañ jógee foofu ci lañu tànn at mi corona bi ñëwee ñi naan màggal dina am màggal du am mu wooñu ñu ñu màggal gi kat dana am waaye su ma sañoon ngeen ñëw ànd ak yéen ñun liggéey bi ñu ñëw ànd ak ñoom. boobu ba léegi nag at bu jot dañuy woo ñu feddaliwaat suñu kóllëre ak ñoom kon amuñu seen fay ndax ñun bi ñu jógee yàggul naam ay taalibe lañ dañoo judd doon ay murit ndax sens mooy nga judd doon jullit wëlbatiku doon murit man dama naan damay sant ñaari yoon dama doon jullit doon murit mais li may gën a sant mooy damay sant samay waajur. ndax bu ko neexoon tuddee ma ma ñëkku bajaan waaye daf maa tuddee xaadim rasul faal kon dama koy sant bu baax a baax. bëri na fu may dem bu ma présenté woo dañ naan yow kat li ngay bëgg day yomb te sëñ bi man ma jàpp naa ne mi ngi may defal xéewal bu baax a baax damay sant nag sama waajuru jigéen mi ngi ci jotaay bi toog li tax ma koy sant mooy bëri na ñoo xam ne jotaay bu ñu dem ñu ne la kaay wax yombul de waaye am na ñoo xam ne jotaay bu ñu dem bu ñu yëkkatee ñu ne noppil. loolu nag li koy maye mooy liggéeyu ndey kon dama koy sant bu baax moom sama waajur bu jigéen di soññi soxna yi tamit ñu jël référence ci loolu waaw ci góor góorgóorlu bu baax euh, bu ñu noppee ci ñooñu ñi ngi sant sëñ Xaadim Taysiir ndax moom it ba ñu tàmbalee liggéey ba léegi saa su ne mi ngi ñuy yombalal lépp lépp lu ñuy def daf ñu ciy boole. di sant sëñ fàllu Mbacke di sant sëñ mataar ak ñoom ñi àndal ñëpp bu ñu leen santee ñoom maanaam wéyale nañ ko ci m taalibe yëpp. waaye nag feccum liir bu neexee yaay ji moo jàpp ci mbagg ya ñun ay homme de tenue lañ dañuy sol ay soldaar lañu dañoo nekk ci service di liggéey mais lii ñuy def buñ ci amee ndigal suñu ay kilifa ñoom ñooñu ci jàppale bu leen neexoon tere ñu ko te duñ ci mën dara ndax kat ñun ñoo porté bu volontaire ne dañuy sol kon dañuy sant directeur des eaux et bi fi nekkoon muy le colonel major Baydi Ba dañ koy sant bu baax di ko gërëm ndax diiru bi ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi heure bu ñuy dem Touba dana yëkkati xaalis bu bëri jox ñu yëkkati carburant jox ñu yëkkati ay oto jox ñu defal ñu ordre mission ñu dem kon kooku mënuñu def lu dul di ko sant di ko gërëm. bi mu fi jógee kii nga xam ne moo ko wuutu di colonel Babacar Dione moom it dañ koy sant di ko gërëm ndax li fi kenn doom def ba mu ñëwee dindiwu ci dara da koy wéyal kon ñoom mënuñu def lu dul di leen sant. di sant tamit la directeur di parc dañ koy sant ci dalal bi muy dalal ndax centre bi. biñ ko ñëwee wax ko nii dañoo bëgg a organiser boo xam ne day jëm ci waajtaayu màggal Touba dafa jël centre bi mettre ko à notre disposition jox ñu ko kon dañ koy sant di ko gërëm. parc bi ku ne xam na ne boo fay dugg te bokkoo ci service bi dafa am ay règles yu ñu lay tegal maanaam danga fay bàyyi sa permis bu dee oto civil nga yor du dugg ci biir waaye dañ ñoo ubbil bunt yëpp ñi yaakaar naa ñi fa fanaan euh, xam nañ ci dara dañoo ñëw dugg nu leen neexee. kon loolu dañu leen ci sant baax di leen gërëm ndax bu leen neexoon bañ ko def te mënuñ ci dara di sant tamit ki nga xam ne moo ñu dalal fii di sëñ abi mbay moom mi ngi xam ne moo nekk fii ci CICES dañ koy sant bu baax a baax centre forêt bi nekk Thiès ki fa nekk directeur colonel Mamadou Gaye bokk ci daayira xidmatul xadim dañ koy sant bu baax moom suñu magum daayira la moom service bee ñu boole ñaari yoon dañoo bokk service bi bokk di liggéeyal sëñ Touba ñu koy sant di ko gërëm Euh, di sant tamit ki nga xam ne mooy le colonel Youssoufa Diouf retraité na ñoom it ñu koy sant di ko këram waaye nag du ñu jeexal te ñaanaluñu ki nga xam ne dafa nekkoon ak ñun te yàlla jël ko muy le colonel Birame Dieng di ko ñaanal suuf seeti koom di nuyu partenaires yi di leen sant bu baax ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale comme euh, ndox yi nga xam ne ngeen moom ngeen gis nii ci kaw du publicité nag waaye dafa baax bu la nit defalee teraanga bu ay nit teewee nga fesal ko dàqul dara. ndax ñoom kat bi ñëwee wax leen suñu bis dañoo ñëw jàpp ci lépp luy ndox ñoom ci la ñuy yëngu ñu yombalal ñu ko loolu indil ñu ko ba fa ñu nekk nañu lu ngeen soxla ñëw leen wax ñu kon yell na jaadu na ñuy sant leen bu baax di leen gërëm di sant pépinière aan ñi nga xam ne ñoo fa nekk ndax heure bu ñu soxlaa garab nu manti toll bu ñu ñëwee def demande dañ ñu koy yombalal kon ñoom it ñu ngi leen di sant di sant mbokk taalibe yi nga xam ne ñun ñoo bokk ak ñoom liggéey bi xidmatul xadim Oyo Fodé ñi ngi sant ñëpp bu ñu libee jëwrin ji El Hadj Babacar Cissé bàyyiwuñu kenn kon ñu ngi sant ñëpp waaye ñii teew fiit fii mënuñoo jeexal te santuñu leen ndax woote yomb na waaye woote ñu wuyu la jafe na kon képp ku fi teew ñu ngi ñaan ci barke Cheikhul Khadim yàlla na suñ borom faj say aajo shaayiran wa baatinan màggal gaa ngi ñëw yàlla nañ ci yegg ak jàmm ak salaam ba weesu ko képp kuy murit foo mën a jóge war a dem Touba yàlla na say poos fees dell lépp lu waay war a ci màggal gi yàlla na ko suñ boroom jàppandil ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di tuub ci kàddu yi ñu yëkkati dafa mënutoon ñàkk rek ndax murit moom ndigal rek lay jëfee waaye ñu ngi tuubaat bu baax a baax a baax di santaat di leen wax ne dal leen ak jàmm jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal aali wa saxbihi dawi nawaalil waali wa radiyallahu an cheykhina wa wasilatina ahmad ibni muhammad ibni habibillah xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa saxbihi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki taalibe yi maa ngi jiital ni ko sama bokk taalibe yi jiitu waxe di sant ak gërëm borom Tuubaa mi nga xam ne sant ko dañuy war waxtu wu nekk ngir tawféex ju rëy ji nga xam ne am nañ ko yàlla jaarale ko ci moom kon ndokk ñu ngi koy sant sant goo xamante ne santug làmmiñ la di wax jërëjëfati cheikhna ahmad al xadim waaye di ko sant itam santug jëf te mooy ñun ñëpp bokk laxasaayu ñëw teew fii ngir di waajal liggéeyam bu mag boobu nga xam ne dañu ko santoon ngir ñu defal ko ko te mooy santale ko boroomam moom ginnaaw bu ñu ko santee bu ñu jaar fii sunu bokki jaar sëñ xaadim ak ñi ko jiitu di sant bu baax ci dalal gi ak yaatal gi lépp xam naa ak jël kàddu ci turu délégation bi dana ci ñëw di sant Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xamante ne moo jiite liggéey borom tubaab yi ak Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke mi nga xam ne moom la àndal di sunu jëwrin ci liggéey bi ñuy topp ci ay tànkam di jëfe yitam ay ndigalam ci lu aju ci liggéey bi nga xamante ne dañ koo bokk séq di ko liggéeyal Sëñ Tuuba sama intervention dama koy def ci fukki minute incha allah loolu lañ ñu cërale ci kàddu gi bu soobee àlla exposé lay doon boo xamante ne day jëm rek ci li ñu fi dajale te mooy nan lañuy gën a mën a waajee ba liggéeyub Sëriñ Tuubaa boobu mu ñu sant te mooy santale ko boroomam ci bisub fukk ak juróom-ñett ci weeru safar ndax ca atum 1925 bu wute yëpp weesoo li gën a wér ci la santaane woon gannaaw boo xam ne yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala mi bëggoon ci moom jox ko ay daraja yu kawe def ko muy sunu ndimbal di suñu wéeruwaay di suñu xettaliwukaay bu ëllëgee yowmal xiyaam moo ko tegoon natt yooyu nga xam ne moom la ko teg yóbbu ko ci tukki bi tukki bu rëy boobu te tonowu lool nekkoon ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ñett ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu doon tolloo ak fukki fan ci weeru août 1895 mu bàyyi ko Mbàkke Baari dem ci tukki bi ginnaaw bu mu liggéeyee liggéey ba mu tukki ca Gabon jaar ñibbisi dem Mauritanie liggéey fa beneen liggéey boo xamante ne bu wuuteeg tukki bu njëkk bii la ndax wax na ne man zanna sayri ribba aami jagsasi misla masiri rësa aama jaysasi sabata kawnuhu jahulan gumra bal huwa tatyibul ali lil umra képp ku yaakaar ne sama tukki bii ma demoon ci Gabon mook tukki bii ma tukki woon ci murtani ñoo bokk bay benn nee na kooko dof bu doppooral la boo xamante antakum xelam ndax sama tukki bii ma tukki woon ci murtani tukki la boo xamante ne yàlla dama caa dikk ak pay da ba ma liggéeyee ba war a wàcc mu ne ma jaaral gànnaar encaissé door a ñëw looloo ma yóbbu woon gànnaar Mauritanie te loola wax na ko ci xasiid wa kaana xaqan wax ne yàlla sunu boroom lam ma digoon jox na ma ko ca ramadaan ja nga xamante ne moo ma fekkoon foofa ca gànnaar ca xumaag ca ca ca ca nekkoon wal waadu lii fii ramadaana najaza loolu wax ne ajru alladi maa indahu laa yanfadu wa sola lii wa ma ataraahu nafadu kon loolu liggéey bu rëy la ba mu fa jógee ñëw ci yeen jolof taxul mu génn ci ay loxo ñëw njaareem def fa lu jege fukki at daanaka yàlla sunu borom door koo xamal ne bis booba nga doon tukki muy fukk ak juróom-ñett ci weeru safar di bisum nattu boo xamante ne nattu yiñ la ca teg lañ la ca dig ca ak pay war nañ la ca lenn jox nañ la ko ca gànnaar waaye nattu yooya bis ni tey man sunu borom mi la tegoon ay nattu muy dellu si saa yu bis booba dellusee nattu ya di yees maa la teggil nattu yooya yëmuma ci teggi ko waaye dama ko soppi muy ay may ak daraja yu kawe yoo xam ne saa yu bis ba dellu seetee ma la koy defal loola sëñ bee ko nettali ci ak lëg goo xamante ne ñëw na ab yoor-yoor am ku ko jàpp indil ko ko mu ne ko lëg gii day xibaar teraanga jii ma yàlla di defal ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar saa yu dellu seete te mooy nattu ya soppi nañ ko léegi muy ay daraja ki pay loola nag ulaayika yubaddilu llaahu sayyi'aatihim xasanaat yàlla mi man nit ki bu defee aw ñaawteef mu soppi ko mu jéggal ko ñaawteef fa ba noppi soppi ñaawteef fa muy ak rafetal man na lu ëpp di teg ak nattu ab jaamam mu muñ ko mu dem ba mu yàgg mu soppil ko nattu yooyu ay daraja yu kawe di ko teg loolu yàlla mën na lu ëpp loolu bi bi loolu xewee nag la Sëriñ Tuubaa door a santaane nag ne bis bii nga xamante ne ci la ma yàlla teralee teraanga ju tol nii cant gi ma yëg ne moom laa ko war a sant moom borom bi subhaanahu wa taala yëg naa ne lottu naa ci santal ko sama bopp dama bëgg bis bu dellu seetee képp koo xamante ne sama mbég sa mbéga nag ma ci sant la yàlla kon suñ tubaa liggéeyu cant la santaane ci màggal gi du bis bu ñuy fàttaliku dem gum demoon ci tukki bi déedéet bis bu ñuy santale suñu suñ suñ tubaa boroomam la ci ay natt yum ko wuutalee ay darajaaki maqaama yum koy fay yuy dollee ko ca bis booba te kenn gënuñu cee seddu nag ñun kon kaay sant ci lu ñu la defal moom lu war a yomb la sant googa dañ koo def di ko def ba mu egsi ci sëñ Fallu mi nga xamante ne moo ko wuutu moo wuutu sëñ Moodu Mustafaa mi ko njëkkoon a wuutu ndax diggalu sëñ Tuubaa mosuñ koo bàyyi ñoom murit yépp bi mu egsee ci sëñ Fallu la ne dama bëgg nag cant googu mu santaane woon ne fu waay nekk bu bis bi dellu seetee nag ko santal nag ko santale boromam dama bëgg bu ñëwatee ñun ñëpp dajaloo ci dëkkam bii nga xamante ne mooy Touba dajaloo fa da koo sanc ngir yu bari ndax Sëñ Tuubaa dama ko sanc ngir nit ñu dama ko dama ko bëgg ngir góor yàlla yu bari dañoo bëgg woon tuubaa taamu ko ngir moom ko muy seen alal waaye tuubaa tànn ma ci biir góor yàlla yooyu man sëñ Touba dama bëgg tuubaa ngir dama gaa gis muy pàkk bu laab bu sell ma xemmeem faa dajale ak njaboot yar leen fa jàngal leen ngir tàggat leen yóbbu leen seen boroom mu nangul ma ko loolu tax na ma bëgg Touba dama bëgg Touba ngir yàlla sunu borom subhaanahu wa taala miy tànn pàkk yi moo ma ko tànnal muy sa pàkk ginnaaw Makka ak Madinatul Munawwara benn pàkk kawewu ko sëñ Fallou ne damaa bëgg dëkkam boobu nga sancoon mu sancoon ngir yar ak jàngaleek defar ñu dajaloo fa di ko defal liggéey boobu nga xam ne moom la santaane mooy liggéeyu cant gi kon loola di ñaari ndigal muy màggal ak màggal si màggal fu waay nekk bu bis bi dellu seede yoor yor ba nga sant la ci Sëñ Tuubaa boroomam foo mën a nekk di ko def yaa ngi màggal waaye ku ñëw Tuubaa nag dangaa ngaa màggal si màggal si nag daa am lum laaj màggal si daa am lum laaj lii ñu nekk nii du ab conférence de presse séance de travail la mooy ñii fi nekk ñëpp ku ci ne kilifa nga gu mbooloo mu bëri topp ci yow te mbooloo moom mooma liggéeyal suñ Tuubaa di seen yitte te ñu koy defee ca dëkkam ba di Tuubaa kon ñoom buñ ñëwee yéen ñi nga xam ne yéen a dellu ca ñoom tàggat leen war ngeen leen a xamal yii nga xamante ne moom laay bëgg a wax muy ñii ñëw di màggal si ca dëkk ba lañ jawal si jëm waaye bu ñu jëm see ca dëkk ba benn destination finale bi mooy jumaa ja fa Sëñ Tuubaa nekk ku dugg Tuubaa rek wuy si nga ci liggéey bi waaye egsi ku egsi ca pénc ma ca urum ja siyaar si nga borom Tuubaa ziyaar nag ci diine te mooy lislaam dafa am ay teggin yoo xamante ne moom la war a làmbool ngir nit ki bañ cee jëree ay lor waaye jariñoo ca loola ñi nga xamante ne ñooy nekk ca barab ngir di làddantee ka jubbanti ni ña fay ñëw war nañ koo xam xamin wu rafet woo xamante ne ña ñuy giidee dañ leen niital làmp bu leer waaye wommat leen ci ay teggin ñoom ñu siyaar ci ay teggin ngir góobee ca lañ diggee ci ku siyaar siyaar bu jaar yoon loolu nag ba ngay jiitu ci ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ñuy tëg tënk ci li ñu wax ñu takk ko man koo jotal mbooloo yi nekk seen gannaaw ngir ñu méngoo melokaan yooya ba ñu ñi jubbanteeka làddanti buñ ñëwee ak juyoo bañ a mën a am wala bu amee itam mu bañ a bëri ndax mbooloo mu toll ci ñeenti million wala lu ko wala lu ko ëpp faw buñ dajee lépp du mën a jaarandoo yoon waaye li bu jaaree yoon ñu santee ko Sëñ la jiitu ci teggini ziar mooy yow mi nga xamante ne yaa war a jubbanti si war ngaa waaj yow ay waajtaay yu bëree bëri yow ci sa jëm bopp waajtaay wa jiitu mooy war ngaa laabal sag ruu yow niki koo xamante ne day jublu ramadaan war koo waajalee tàmbale ca rajab di def ay astaghfirullah ngir sellal bakkanam ba bu eggee ca ramadaan man koo màng na ko yàlla diglee kon yow mi ñëw te war a joxe ndigal kuy diglee ko tere war naa defal jëmmam ba ku xool ci moom bu yëkkatee kàddoom kaddu ga du yem rek ci ay nopp waaye day tàbbi ci ab dënn loolu la koy may mooy nit ki waajal boppam moom ci gëm ne daa war a tegu ci saraatal mustaqim bala mu caa kenn loola waajtaay yooya la ca jiitu mooy yow na góor góorlu ci sa digganteeg sa borom góorgóorlu gu wér ndax looloo fi indi woon Sëñ mu wuutu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy laabal sa jikkooy biir te loola yaa ngi koy amee ci topp ndigali Sëñ Tuubaa yi jëfe ndigal mooy laabal ak ruu di ko sellal ba nit ki bu ki muy digal ak ki tere bu yëkkatee kàddoom moo xam ne kii ku war a digle la ko war a tere la léegi-léegi ndigal jug jëm ci ku ko war a jëfe ka kam kam jëm ci moom jëfewu ko waaye fi mu bàyyi ko moo laabut kon kii digle daa war a ñag boppam moom ba noppi loolu ñaguk biir la goo xam ne nañ ci soññ bokki taalibe yi ngir ñu defar seeni melokaan waaye tàmbale ko seeni melokaanu biir rafetal seen jikko ndax lu ne ci biir day feeñ ci ab ci bitti nit ki jàkkaarloo yow di ko gis te doog ko wax du ko mën a làmb daj ko waaye sa yu ko xoolee gis ko ñaareel ba te moom benn la ci meññenteef yi nga xamante ne day juddoo ci laabal gi nga laabal sa biir te mooy sa jëmmu sa melokaan la ci jiitu mooy saw colin ndax kii ñëw ci yow balaa mooy dégg li ngay wax sa jëmm lay njëkk a gis kon war naa gis jëmm joo xamante ne bu réeroon war a laaj war naa xammee ma gaaw a egsi ci moom ba laaj ko ndax xam ne soo egsee ci moom rek gindeeku ab gindeekat noonu la war a mel ku ko séen da ko war a xammeem ngir egsi ci moom waaye ku egsi ci moom sax aaju fajo kon ñu defar melokaan yi ba mu gën a murte te bu lu murte mooy lu jullite ñetteel bi mooy le discours mooy li nga xamante ne moom la ñuy jàllale message bi ñu jàllale ñi nga xamante ne yow juum ñu war leen a jubbanti wala ñu war leen a laabiire ngir ñu am ziar bu jaar yoon loolu itam ñu tàggat ci ñi nga xam ne ñoo nañ mbooloo yi ñëw foofa ngir ñu am ay wax yiin yoo xamante ne yu murite la yu taalibe Sëñ Tuubaa fekkoon na fi ab yar da cee dolli ay teggin xam ngeen lu taqale diggante ab yar ak i teggin ab yar mooy lépp loo xamante ne danga koy wax nga waxiin ko waxiin wu jub ay teggin mooy nga waxee ko nu neex a dégg maanaam boo waxee lekk nit ki daa mën a lekk wax nga baat bi waaye war na tamit dañ koy wax waaye wall ak lekk ñoo bokk lu ñu tekki waaye lekk ko gën a civilisé fi mu ne boo waxee lekk yaru nga waaye boo nee da ngay xéewlu yaa ngi ciy teggin nag yow mooy am murid noonu discours yooyu la war a yor loolu mooy ay teggin ab yara teggin buñ koy wax murid bi da ko war a làmboo moom ngir ma mu nekk ci moom saa yuy jëf walla muy wax mu fenc bismillah soxna si ñu jekkal waxin waxin wu teey waxin woo xamante ne day neex a dégg ki lay dégg mën na laa rus ba tax mu jëfee loo xamante ne moom sax bëgg ko woon a jëf waaye am na noo koy waxee rek moom mi ñëw day rejeter li ngay wax parce que ni nga ko ko waxee la kon ñu bàyyi xel le discours il est très très très très très important ñu bàyyi ko xel bu baax bu weesoo yooyu ñu bàyyi xel ñi ñi nga ne daa am ñetti teggin yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel benn bi mooy teggiini dëkk ba di tuuba at tayiba ñaareelu teggin bi mooy barab ba nga xamante fa la ñu nekk muy jàkka dafa am wàccuwaay ci lislaam wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan jàkka dafa am worma ci diine mooy néegub yàlla sunu boroom ñu ñëpp xam nañ ko ba ñëw judd rek dégg ñu naan néegub yàlla bi muy jàkka koo xam ne sa borom la koo xam yàlla ci kattanam foo xam ne bu wàccoon fa wàcc boo fay dugg war ngaa amee teggin am war ma ñetteel ba mooy fa nga xamante ne fa la suñ yaakaar ñun ñëpp tëdd muy cheikhul xadim muy teg jiin yu ci dolli kuwaat encore ñetti yii suñ ko bàyyee xel lépp lu ñuy def dana nekk lu jaaru yoon ñu xam ne suñ tubaab miñ ñuy gis ci bët ci ci ci fuñ mën a nekk ndax yaral xafaaya bi aynil qalbi zahiratan kama yushahidu ma taxtal akinnaati wasalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baal àq di leen baal àq di sant bu baax ñun fekk si fii ñu dalal ñu ak ñun àndal ci liggéey bi yëpp di am mbégte lool nag ci jotaay bi ndax jàpp naa ne jotaay bi ni ko seen di waxee léegi nii jotaay bu am solo la ci waajtaayu màggal gi ndax mbooloo mi toog fii ñoo war a gàttanu gani xaadim rasul yi war leen a gunge ban ziar ñu wàccoog kàddu yi wax nii muy jëmi tuubaa jëmmi jumaaja jëmmi barabu seexul xadim ba jàpp naa ne kenn doylut waaye lu jiw a jeexut jógu fa waxtaan wi it ndegam dañoo dénk ab liggéey boo xam nii bi mu juddoo yàgg na 1994 mars muy liggéey boo xam ne nii a Cheikh Saalixu Mbàkke ci la déparé ñu laaje ko ndigal mu jox ñu ndigal jox ñu aw tur xalal ñu aw yoon ginnaaw ba benn yoon la fa demaat yi des ci liggéey bépp moo ko wax joxe ci ndigal bin juddoo daf ñu jox ndigalul jumaa ji julli ajjuma ak di setal jumaa ji di ko laabal di tàqale góor ñi ak jigéen ñi taxawu julli moo ci yokk julli gi ayit yi tabaski ak korite lii moo nekkoon suñ mission bu njëkk ci jumaa ji ñu koy taxawee sëriñ Saalihu Mbàkke moo ci yokk tere yi te mooy ñi daan jaay ci biir jumaa ji ak pénc mi wecceeku ngeen xam ñun ñëpp ba amoon turu weccetu Touba sareet ak oto vidange yi daan jaar ci pénc mi ñi baan diiwaan di wër pénc mi ñi baan ñi daan ñi daan ñi daan yu baree bari mu wax ndigal ci ndigalam na loolu bëgg naa ñu jële ko fi teg ci ab sart te mooy mu ànd ak yar ak teggin nag suñu waxee nii léegi nii jàpp naa ne tamit réussir nañ ko ci yar ak teggin ginnaaw bi ci julli àjjuma yi ni ko ñëpp xamee ci yoonu murit bi xër murit yi àggoon nañ ci bu ñuy xutba di leen xupp ci wàllu diine ak ci wàllu ak taalube ak bi yar ak i teggin xañ ne kiy wax arab lay wax ñu bari ci ñoom duñ ko dégg wajtahidu ibadallah allah yaraakum juróom taxoon na ay ay ñàkk déggante am ci ñu wax ko ko moom loolu ñoo ko wax ñun mu jox ñu ndigal ñuy def njëkk ñuy julli di leeral diine ji ak murit gi ak yoon wi ba pare nag daat ñu nag tëkk beneen sart mooy nan tànn ñu ko man te yaru te xam te xàmmee te doon ñoo xam nii danañ man yi def gannaaw loolu dañuy dellu siwaat ci tomb boo xam ne waxtaane nañ ko fii ay yoon yoon waaye jamono dafa laaj ñu dellu siwaat ci ndax am gi mu am solo loolu mooy war may dëkk bi dëkk bi ñu nekk muy Tuuba war maam dañ ko war di fàttaliku saa su nekk di ci soññante di gën a wagar jàpp naa ne bal te ñoo ñoo ngi ci taxaw ba léegi loolu te moo raw ci jàkkay murid yëpp niki noonu li nu andi ci piil yi sansem piil yi ñu def ci waajtaay yi ba léegi sax mu sax ndax xam ngeen jumaa ji ay junni junni piil a fi nekk yu wuute aw melokaan te cher ay ventilo ak ay matériels yu baree bari nettali bi mooy daal foo mu jaar ci ñu wàccaay koor tubaab dama am aaday bis bi njëkk ci koor muy fas ki sëriñ yebal ndaw mu ñëw ci jumaa ji dàggi nit ñi fàttali leen waar leen yab leen waaye jaar na fa jëm kër sëñ saaliwu fekk jumaa ji jamono tàkkusaan timis mu xaw a xoy mu dem wax ko sëñ bi ñu nit gis na ne jumaa ji commencé naa am ay leer gi des na ñu commencé distance par benn benn far ndigal fekk ñu fa moo indi ci ma seen liggéey ñu boole ci loolu niki noonu a Cheikh Saalihu Mbàkke mbokki julit mbokki taali bi dëkk tuubaa am aw gisiin ak bëgg a roy Makka Madina ci aw nekkin ci koor ñoo ko proposé taxawaayu ndogu ci biir jumaa ji Serigne Sall nangul leen ko boole ñu ak ñoom nañu neen koy toppatoo te jumaa ji nay set bu dee ci ak nekkam moom tamit moom ci am xelam rafet moo gis lu ko doyut ci barab njëkk yi li aw nekkiin wala ci ay defin yoo xam ne nii wutu naag sunna wutu naag ab yaa wutu naag ay teggin mu jox ñu ndigal ñu koy saytu kon mu boore ci pénc mi ak barab njëkk yi ñu koy saytu ak tere yi mu tegoon ba bi fi bàyyi ko leen baara nekk xalifa ñëw yee yeesalaat ndigal yi dëgëral ko daan ñu joxal beneen liggéey ñaar liggéey yu bokkut daan nañu min bi nan ko gën a taxaw ba mu wàccoog ndigal yi wàccoog ni ni ko doon doyee waaye gani sëñ Tuubaa yi ñëw ci màggal di màggal si nga xam ne ci saaxir lay waxe fekkoon ne sëñ Tuubaa mu ngi ci kaw suuf nii di saafara ak moom nii bu ñëwee moom la dalal mu ne daayira bi na koy teertul gan ya di leen nemmiku di leen toppatoo ban ñëw ba ñibbi loolu moo nekkoon liggéey bi mu yokk liggéey bi ginnaawam sëñ Sidi Muxtaar bi mu ñëwee yeesala ndigal yi tëj armeelu njëkk yi ubbi baqiyan teg loxo bi teg liggéey bi ci loxo xidma kon lii mooy xidma ñuy dox ci loolu muy metti ñu ciy dox bam nooy nepp lépp jaar yoon taxal dëmmut ñu taxaw màggal ci ni mu ko santaanee ba ngeen ànd ko yéen ñii mu gën a jub gën a rafet gën a baax gën a neex jàpp naa seen dañu wax ne moom ñépp xam ne moo dox waaye nag dagg gi mënut a ñàkk ci ëllëer dage bi fii ndegam ñun ñoo na li ñuy giseel ñun ci bunt yi kon kay li ñu tere ñun war koo xam ba booy tere nit xam li nga koy tere waaye jëlaale wax si am na ji mu wax noo koy defee ci ab yar ak i teggin tere yi nag du tere sëñ Fallou Mbacke mii ñu àndal muy suñ kilifa terey borom bi la ci jumaa jàkka terey kilifa gi la xalifa bi ci jumaa ji ak jàkka ji ak euh, barab bi ak pénc mi ku ko xotti ku ne yaa xotti worma ji waaye ndigali moom ñun ñëpp ñoo ko bokk kon jaadu na ñu xam ko gis nañ nag tolof tolof yi ndax ñoo nan ñun fukki daay ñett yi toog nañ waxtaan Touba ba gis nan jafe-jafe yi am na ci yoo xam ne nii sunu nit ñoo ci war taxaw mu dañ am na ci loo xam ne nii waxtaan yu mel nii moo koy dindi tax na kon ñu degee fii nag ngir bëgg a te wane waale ñu gis ba yow miy nekk ci mbedd mi di teram njaay ku la attaqué ak lum ñëwee ñëwee ak doole lu ñëwee ñëwee ak bëgg a xeex yow nga xam nooy ànd ak dal ba doo xeex ak moom te li nga bëgg na ko am na loolu naa ci nettali benn benn benn bu gàtt rek suñ fàll mii mën na ci seede bi ñuy teree njaay mi ci jumaa ji am na koo xam ne nii diggante ba sëñ Fallou lan lal ak ak escalier yi wàcc noonu fay la lan njaayam ay carte ay ay fotoom di jaay dem man ba xeex nar a am man jéngu xam ne xeex rek na moo ci des ak kilifa suñ suñu daal muxtaar mbuso ñëw delloo si nañu waaw déeg jaañ téegóob ngeen xeex ak moom ngeen am li ngeen bëgg ci force wala boog mu ngeen échec mu am li mu bëgg ci force nan ko nan ko dégg commencé noonu te jàppalaa ba ko déegi ñëwaat lan doon saafaraw saafarawoon te xeexuñu xam ngeen ne jumaa tamit bu njëkkoon ku dugg borom këll yaa ngi lay kar yu mel noonu te loolu dindi lañ ci ma jëfoon na te lépp dañ na kon léegi yar bi ak dal gi lañ soxla ak xam ni ngay waxeek nit ki ci yar teggin ku leen attaqué ci ñett yi mooy am attaque bi attaque ñett yi moom mooy ci njaay mi ndax màggal dafa oom ci rang ndax rang daa metti saa yi rang fi muy jógee daa metti am maxtaar ka ne nekk ba ci biir bëgg bët rang gi ci ay waareeg mbaa mu ruube ba jàll te du nangu loolu kon yow ki la bëgg a ruubee ngir jàll ci rang gi nooy def ak moom waaye nag li xew léegi te ñëpp am ko te ñëpp mu seen xel mi photo woo ko sinep te muy jur ay coow suba ngoon te li ci yéeme mooy saa buy amee rafet yu jàll kenn du wax sant nga def waaye murit yi saa boo juumee benn photo rek bu am misik dong yow moom tey nga dee kon nag yooyu te lool moog jumaa jee ànd kon fu ñuy jaar mucc yooyu ak nu ñuy xàmmee nag ki ñu war a aaye biir jumaa ji ak ki warta aaye ci may col yi col yi nga xam nii moo valable ci jumaa ji mooy col gi diine valable ci sol diine bu dee ci góor mu ci jigéen jigéen bu mu xat bu mu yaraax bu mu gàtt suñ mbokk jigéen ñi ki meesu am meesam nëbb ko ci bi nëbb ko muuru bul lunjutu ki wàcceeb abbaayam solo tëbayam nëbbu ko bul lunjutu loolu vraiment bokkut ci kon nan ko bàyyi xel sawaay ki sol mbaxanaam takk weeram takkub lamam di góor kooku tamit jër aaye ndax mbaxana daa ànd ak jumaa nag saway waaye teggi nii am na ñoo xam ne moom du sol mbax jumaa ji waaye am na koy sol te sol sol mbaxana ci biir jumaa ji wala mu am ngàntul dox ci karo yi ngir ne am na ci ngànt ay dàll mi sol bul ko arsele na ko summi say dàll lu koy defee summi dàll yi summi ceen gi tekki lam bi indi appareil bi def luñ ko kenn waaye mu ci bunt bi nag boo gisee soxna soo xam ne ñëw na ci bunt bi melokaan wi dëppoowut ak melokaan wi war laa biire ko yiwi ko mu dem solo ji ci ay teggin ki bënn bakkanam ki bënn lexam ki bënn bi lexam yooyu yëpp sa yoon niw ci tëralawul ko kenn ndax loolu ci diine moom beneen affaire la danga daaw daaw daaw leeroon na Louga Louga daaw daaw suñu Fall leer na ci daaw su am solo daaw ci Louga yi bàyyi xel bu dee col gi ci jigéen léeg-léeg jigéen ñi xewal nañ colu góor ab baay laat wala ab baay son yi bu ñu koy sol ci bunt bi laay waxe ci bunt bi bu fa yemeeg moom boo ko dëppee amoo amoo ci problème ndax daa sol col ko góor te jigéen du sol col ko góor kooku moom yow man bu dee ci bu dee même bu dee jigéen bu dee góor Lagos yi wax legoos yi léegi gaa yi ko aaye gaa yi Lagos kenn aayaloo ko léegi tamit gis ñu ànd bokk luy def misaal kuy jaay dara ñu bokkandoo sol ay tiset wala su bokk bokkandoo sol ab digisement bi mu bind dara waaye ñoom bi ñuy ñëpp jumaa ji di siyaare si xañ na am na loon tax a jóg lu joxew ñam wala joxam ndox maam jaay seen produit yi la nga pib la dañ koy tere photo wu bi laa biire ko wax li ci nekk li ci nekk mooy li gën ci photo mooy nga ber góor ber jigéen la gën ci vidéo mooy bu ko defee tam beru bu mu am son misik walla mu tëgg wax yooyu rek am na nag waxam nag da koy biñ saase bu fekkente ne nag nga nga ànd ak moom ci ab yar jébbal suñu absence dum ne ko kii defal léegi lii daa cay génn mu wax ak moom. ñu dañoo amoon xelum suñu xel joxoon ñi bàyyi fii njaay xasida suñu xel loolu ne woon ban commencé ko ku baax waar ñu ne ne njaay njaay dong la na fi jóge ji ñëpp jóge ñu yëkkati leen ñoom ñu def délégation ab daayira def délégation dañuy saaliwu di ñu boole suñu saaliwu ne jaay. jaay doo nga la ma wax ne foofu fi kenn jaay mu leer nañ bu dee nag kuy màjjaal kuy màjjaal boroom kàttan lan wax borom kàttan kuy màjjaal ci pénc moom day génn pénc bi ki am ngànt nag na jéggi tool bu njëkk bi dem ci bu ñaareel ba waañ waañ wi jumaa ji dana togg fukki fan waañu fukki fan waañu mag am na fa waaye yéen waa xidma yéen treize daayira yi ne leen soxna yi ne leen soxna yi ku am ngànt ku am ngant na toog baa mu dem ci beneen liggéey te génn jumaa ja bàkkaaram la ku am ngànt waañ waa nga fa ak yeneen yeneen biir jumaa ji moom dugg fi waru la islaam moo la ko aaye loo fay gëlee bàkkaar rek loo fay gëlee ndimbal te loolu nag jigéen la ko yàlla jagleel mu koy dal da ko war a gëm maa ngi jéggul nag ci kàddu yu guddi di ñaan borom bi dara tawut màggal gi ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamina yàlla fi ñu tawfiix ba mu nekk màggal gi gi nga ba réussir te ñaan dañu ñëpp ñu am ñaan ñaan suñ jëwriñ ji yàlla aar ko ba yéene jim liggéey yéene liggéey maam ci jumaa ji mu def ko ni mu ko bëggee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk julliti mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu képp ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi xalifatul am di muridiya di sëriñ Muntaxa Mbakke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te noonu lañuy ñuy ñaanalee sañ Afiya Buso jëwriñ mu xaddumaatul xitma di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér noonu nañu ñaanalee sëñ Fàllu tuuba moom mi jëwriñu liggéey bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér kaddu yi may wax nag day kàddu mbooloom daayira yi nga xam ne ñoo nas liggéey bi di ko tàmbalee ci mu xaddumaatul ma ak mbooloom daayira yi ci sofu yépp muy fédération yi ak mbooloo mi su ma ci jukkee sëñ Fàllu Tuubaa di jëwriñ liggéey bi day mel ni mbooloom délégation bi mu àndal mu xaddamaatu xidma wax naa ñëpp bu ñu xaymaa daayira yi yëpp yi nga xam ne ñoo war a liggéey ci biir jumaay Touba ñu ngi nekk 1600 personnes 1600 personnes bari na bariwul mais dafa am lu ñu lëkkale li ñu lëkkale mooy loo xam ne mënuñu koo séddoo muy Serigne Touba te ñu nekk ay tànneefu Serigne Touba sunu borom tànn ñu ci ëzal ñu fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci jumaam ji. kon daa am bor bu ñu war a fay lii nga xam ne dafa jóge ci xalaatu suñ Fallu pour bëgg a nas muriti ci ñii nga xam ne sëriñ bi moo leen tànn pour ñu liggéeyal ko ci bisam bii bisam bii mu ni na ngeen ma santale yàlla sunu borom yow mi jiite dangay fexe sa doxin jub ndax jumaa jeekat képp koo fay indi war nga xool dayoom suñ Modou Moustapha bi mu ñëwee suñ Modou Moustapha bi mu ñëwee ci mag ñi fa ne woon mu xool jëwriñ daayira yi maanaam xool jëwriñ alxuraan yi ak jëwriñ mbooloom jëwriñ yi ci sëñ xool ndegam benn bi mu ci nekkee lijjanti lijjanti lijjanti lijjanti ba mu xaw a lëj daa delluwaat ci sëriñ bi ni leen ah ni ko mbàkke de ndongo yi de lijjanti naa leen mais am na ñu nangu am ñu nangul sëñ bi ni ko joxaat ma joxaat ma li ma leen joxoon ma séddalee ko man ni ma neexee mais suñu àndee doon benn lu ñu lu ñu mënul amul lu ñu bëgg ma defal leen ko boo xoolee seede bu mag bi mooy sëriñ bi ndongo yi mooy peri seede yi mooy seex bu dagg fekk moromam nii lañu war àndee ñun ndax sëñ Fallou ko dañoo woon buntu buntu nasu la te deful àdduna ak alaaxiraa ngi ci ndax sëñ Tuubaa kat moo waxoon sëñ moo moo moo waxoon mag ñi fere ca njaareem ni leen boo leen demee ba gisatu leen ma gisatu leen samay doom gisatu leen samay sët ngeen jàpp ci ñett yi. ñu ni ko mbàkke ñett yi mooy lan mu ni sama jumaa ji sama màggal gi sama xasida yi rëkk rëkkwaay bi ñu nekkee ci loolu kon ñun dañoo war a sol dàll dàll weñ mu xaddamaatam xidma ni defaluñ ko sunu bopp lañ koy defal lu fa waaye def sa bopp nga ko defal ñoo engagé ni dañuy liggéeyal Serigne tubaa te kuy liggéeyal Serigne Touba da ngaa war a am yéene bu set muy bëgg gëm jëf jëf ji moom mooy passif fu waay yegg sa passif moo la fa yeggal ñun tànk jàmbur la ñuy doxee muy tànk Serigne Touba la ñuy doxee kon buñ ko appal ndax ku ci nekk sa mbiru bopp mën nga koo tële mais sëriñ bi tëlewul dara lu mu bëgg am na ko za nafsin bi laa darari la njariñ gu ànd ak lu lor la kon dafa am bor bu ñu war a fay muy fukki daayira ak ñetti nañ nañ fas yéene am yéene bu sell ak dal ak orma ak cet gi nga xam ne sëñ Fallou sëriñ bi wax na ko muy sëñ Muntaxa muy ñaar yi nañ ci insisté ndax keroog Matar Kan ci réunion bi da ciy insisté waxaat na ko léegi mooy bi ci njëkk muy orma te dégg nga saa su ne sëñ Muntaxa li muy wax nañ ormal barab bi. ormay dëkk bi. ormay dëkk bi. ormay dëkk bi na ko ñëpp. na ko ñëpp bàyyi xel. te xam ne dara jiituwu ko. ormay dëkk bi. ormay dëkk mooy ormal sëriñ bi. ku ormaalu dëkk bi ormaalu sëriñ bi kon nag ormay dëkk bi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax defaru àdduna ak alaaxiraa ngi ci ba ci des muy cet gi ku ne xam nga ni néegu yàlla set moo fa war a njëkk balaa ñoo jaam yàlla kon lii may wax nag du samay kàddu dama koy wax ci kàddu fukki daayira ak ñett yi aleykum salaam wa rahmatullahi taala Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi teewe jëlaat Cheikh suñu borom dolli ko fan la gudd ak wér ba lépp loo xam ne yéen a wut si ñu ànd ko ak moom di nuyu bokki fi teew yëpp ci turu suñu affaire su alimaam mi nga xam ne mooy kilifa daayira mu xadamatul xidma ci turu commission justice bi nga xam ne suñu Abdoulahat bu soo Abdul Mutalib moo ko jiite ànd ko ak mbooleem daayira bi yëpp ñu ñëw fi tey ngir waajal màggal gi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci nekk si kanam kenn lañu ko baaxoo def ci année yi weesu ngir lan ngir bis bi ñu dëgmal suñ ci àggee li nga xam ne moo ci suñu mébét ñu mën koo def nañ ko war a defee ci ndax umpale ñu teew ñëpp. ay liggéeykatu ay liggéeykatu Sëriñ Tuubaa yi kon mën nañ am xidma ñoo fi teew ak nu dee ma tudd rek mu xam ne xidma suñ tuddee day yóbbaal yooyu yëpp ndax li ñuy def xidma rek rek ku ñu ñëpp ci am xidma fii nag ñi dalal ñu fi waa xidmatu xadim Ousseynou Fall dalal ñu fi ci ngir suñu Babacar xëy na teewul jataay bi ngir wattaay yi mu nekk ci seen liggéey bi nga xam ne ci la nekk waaye seen xaadim kon mi ngi la jotal am yooyu ak mboolem mi ngeen bokk liggéey bi yëpp ci turam xelul xidma deen ndokkeel tam ci seen traité xam ne ak yittewoo gi ko ak li ngeen ci coono yëpp def ko mbégte ba tax ngeen dox ci nga xam ne kawe na jot noo ngi ñaan lépp loo xam jëf ngeen ko ci yàlla na ko yàlla fay ci fulal leen ko ak suñu Tuubaa doolu seen i xéwal doolu seen i wërsëg doolu seen i garaat tam nag kim leen ko yéene ba tax ngeen song di liggéeyal sëriñ bi ndax liggéey bi moom yaa ngeen ko ànd ak ñun comme ni nga ko waxee di leen jot li nuyoo Sëriñ Abdou Lahad Bousso nga xam ne ci moom liggéey bi jaare ak Sëriñ Saliou Niang moom itam nga xam ne yaakaar naa miin ngeen ko loolu tam ñoom ñëpp ñu àndute am liggéey yu leen fi xaar ci dëkk ba waaye sëñ seen diggante moom xam ngeen ko moo nañu gunge tey waaye sëñ Bass Abdou Khadre tey daa am lu muy def bi muy daje man ak moom rek sëñ Bass soññoo ko boppam ni ngi waroon ci àtteew man mi sax waali dama ci pexe tey ci jotaay bi sëñ Saliou ñaa ngi am liggéey ndax xam ne ngeen waajtaay gi te màggal si suuf si am na yuñ ci war ci ay waajtaay moo xam électricité ak lépp loo xam ne day tax léegi yéwén ñu jiital yenn yi nag tam bokk ci lu mel ne eh, peintre ba ñu koy tàmbali di ko àggal tey moo tax si Saliou tey mun ta ñëw kon ñu ngi leen ñu ngi leen jot seen yow moom itam maag ñi ma àndul ñëpp rek yaakaar suñu sayal li mën a seen tur du jar ko ñu dikkaat kon nag yaa xam sant leen baax a baax yéen a ñi leen jàppale ñëpp moo xam ñu bokk bi service boo xam bokkuñ ci. ndax liggéey bi yéen yëmu leen rek ci màggal waaye garab yi ne nga ko waxee léegi mu tàndamay ci jumaa ji li ngeen ci jànkuwuteel ci ngir mu mel na mu war a mel yooyu yëpp doon lu am solo loo xam ni sëñ bi yëg na ko te yaakaar naa am jëlee boo xam ne ñoo ne yéen ñoo ko si ñu sëñ Muntaxa kon na ñu ngi ñaan yàlla rek mu dolli leen kàttan dolli seen i garaat mbooleem daara yi nga xam ne nag ñu ne yéen ñoo bokk liggéey bi. jataay bii li tax ñu koy def suñ ci yëgee dañoo bëgg nit jàngat ko waaye nekkul nag loo xam ne ñu ngi ci bàyyi loo xel tam koy jël di ko def tiktok di ko publier mu tasaaroo ñu ko jot di ci jot xëy na su fekkee néew ma dana am de waaye su fekkee jot gi may na ko waa communication xamal ma dañ sàkku ci ñoom ñu yëf benn sketch boo xam comme ni ñu ko defee nii ñu waajal ko su ko defee danga ko ay séquences yu ndaw yu ne leen nga mën ko tasaare seen biir waaye bu dee yii fii nag moom séance de kon nag yem suñ biir lim ci ñun ñoo ko war a jariñoo fas yéene nit ñi njàkkaar lool ñu mën leen cee jariñ loolu lañ jublu ndax xëy na amaana suñ jëlee lépp am loo xam ne xëy na génn ndax sooy génnee dara fekk nga nga war ko waaj ba na sax bu ñu xaaral sa caméraman bu muy bu sax ba ca ay kilifaam danañ ko a dagg nañ ko war a daggee ba ñu mën koo jariñoo waaye su loolu amagul comme ni ko jëlee seen seen téléphone jàllale kon loolu lañ ci bàyyi xel kon daal li muy jariñ rek mooy liñ fi jàngale suñu dem Mbàkke wax na fàtte sëriñ bi ak lu mu def ci liggéey itam waaye itam ñëw ñu teggin siyaar itam nag kon loolu lu ñu war a jariñoo la waaye itam nañu ak itam ñii ñëw ca kenn ko ne xam na ne nit ki bi ñëw ak aal ja muy dikkee ci barab bi loolu nag ñun lañ ko dimbal rek mooy bàyyi xel jataay bi loolu képp la jëriñ te nag wota yam mukk ki xam ak ki xamul xam-xamal nekkul na dañ la ko bind téere nga jàng ko rek déedéet am na loo xam ne des na ko xam ci ruutu ngay tiimu téere ndax yaakaar naa lépp wala boog yaakaar naa kenn ko ne xam na ne min na rabbi asabaka bi himma wala tara bi ma faqat muy sëñ bi bi bi mu nekk Mbàkke Kajoor ba ndégal di ñëw suñu boroom la ma koo digal muy li ma wax léegi kon nag li am solo mooy nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te xam ne suñ bëggee mbiri jëkk dañ ko dëppale ak njàngale sëriñ bi sëñ bi mi sañc Tuubaa da ko sañcoon ngir rawale diine kon nag ngan la ñun ñi nga xam ne dañoo nekk fa gën a jege te mooy jumaa ji te mu bokk ci digal yi nga xam ne da koo ñoroon lool fu mu mas a nekk lu mu tar-tar moom rek la daan ñaan bi mu ñibbisee itam ba ci mujjam kenn ku ne xam ne ne moo ko digaloon ak njëwatam ngir ñu taxawee ko ci boobu ne ko digal tam waxoon na leen ne malaayka yi ñoo nañ fi laaj ko ngir defal ma ko nu ma ko bëggee wurus xaalis mboolem luy rafet luy taar boo xam ne moo gën a dëppoo ak jamono sëñ bi ne leen déedéet dama amul njaboot dama bëgg njariñu noonu la ko jinne yi defee waaye nag ñun la ko dencaloon ba nag mu ñaan ci ne ku ci feeñ feeñ ba faw feeñ googi nag moo tax ñu bëgg ñun ñëpp nag ñu def ko ci pas-pas bu sell ak pasteef ndax biir tam na lay mayee nit tiyaaba ju bari lépp lay def nga selal ko def ko ci pas-pas ndax lépp loo xam ne def nga ko jiitu pas-pas sa jëf joojee doo ca jëlee dara lépp loo xam ne yaa ngi ko def xam itam loolu suñu dañ koy aaye sax far bul def lenn loo xam ne tegul ci xam-xam loolu mu réwloon ci jumaa ji moo tax ku fi nekk Sëñ Tuubaa def ko muy yitt kenn ku ne xam ne ne ginnaaw sëriñ bi Sëñ Juan Mustafaa daj na lu ne ngir liggéey jumaa ji am kenn gisul ci àdduna foo xam ne li naan tabax jumaa rek moo tax ñu gas ab raay nangami kilomètre lu tolloo quarante nangam kilomètre ngir jumaa ji rek am xanaa 47 kilomètre ngir jumaa ji rek jóg ay conditions yu métti ngir gàllankoor ko waaye teew sëñ Modou xam ne Serigne Touba moom li bëgg day am bu fas yéene mu sottee ci loxo tax mu gar ci bakkanam ba def kenn kàttanam ba jumaa ji taxaw ak si maag si si Amadou ñëw ñu julli ko si laa ñëw yokk ci si Abdou Khadir noonu Cheikh Saleh noonu sëñ laaj baar bi nga xam ne moo njëkk a teew xalif surtout ak sët yi bi mu xam ne xam ne si waaye du bëgg yu ne sax ngir woolu leen ndax boobu moom li doonoon yitteem kenn ku ne xam na ne ba nekk xalifa am loo xam suñu too ko bañ ndax suñu tubaa fu mu ne fu ne dootul féexati ca kenn ku nekk ñoom fa nga fa doon nekk man nga faa nekk yàq sa njaboot waaye ra ra kaali ma soo ko ràngoo su nekk sa mbagg bu ne moom sa kër njaboot yu taxaw nag loolu xataay bi xataay bu taxoon njaboot gi bëggoon mu waajalaat kër ga ngir gañ fa ñëw waxtu wu ne El Hadj Mamadou Baar El Hadj Mamadou damay def mais tamit jumaa ji noppi ngir barkeeloo ñoom ñëpp la ñu ko def mooy dañoo dañoo li ma waxoon sànq rek lañu nekk mooy xam ne ku feeñ jumaa ji feeñ ba faaw loolu tax si Mamadou Baar minbar bi lañ njëkk ubbi ngir barkeeloo ko liggéey doo ko tàmbali def lu may def. Seex Sidi Moxtaar yaakaar naa gis ngeen def nañ jumaa yi ba dool ñaar sooroon far Chimon moo taxaa ba fii ma suñu demee sànc ba sànc ma ma ngay dox diggu leen nag mu woote ko li tax mooy xay na li mu woote bëri na te bëggul woote yu bëri yi tax mu nekk ñoom ñëpp li ci dab rek mooy li mu wax léegi rek kon nag ñun ñi nga xam yàlla natt nañu lii ne bu ñu ko jàppee daraja bu ñu ko jàppee benn middaay ba tax ñu ko tiitroo dañoo war tiit suñ bopp te xam ne suñ tubaab mi ngi liggéeyloo suñ tubaab ne ku muy liggéeyloo ku ne war ngaa tal la neen li ma benn waaye maanaam ma suñ ma dégg ñu ko waxtaan maa xamoon day wala suñ tubaab mi ma dégg gis boog ñu ko bind suñ tubaab di waxal ko ci téere bind may gis ak suñ ma dégg ñu ko waxtaan bokkul ca ca day mel ne boo ko xoolee dañoo xaw a gàllankoor yooyu yëpp nag pexe rek la kon bu ñu gis suñu bopp benn yoon ci lépp loo xam ne ñu ngi koy jëf rawat naa ko jamono ñu jëm ubbi ko léegi nga xam ne léegi lépp loo jëf foo taxaw yaa ngi fay wane wu ci xalaat kenn xam na ne jàngaloon nañ ñu gis sam dëgg la sax ne alxuraan waxoon nañu bi léegi wa nahaari siran wa haniitan ci bu ñuy jëf ci nëbb ak ci lu feeñ wa ndax lu feeñ loolu dana soññ ñi nga xam ne bëgg na lu baax xëy na li suñu borom bañ mooy ngay jëf di naw sa jëf waaye nag jamono yu indi loo xam ne suñ góorgóorlu bu ne danañ yóbbe ci gisuñ bopp ndax léegi loo def ñu filmal la ko tegal la ko ci réseaux yi nga xam ne dangay gis sa bopp léegi nii rek fi ne fan yii yaa gis Ibrahima Fall nga xam ne jox ko gi dafa jekk loolu tabaarkalla masha allah nuroog si naamoro radiallahu anhu ñëpp ràññeeku ci loolu fi ne dangay gis ne ku ñu sonn léegi ci ci dog yi danaa ko gis sax moom muy bañ sax nag naan leen dimbaleen dimbaleen ma saa yu ba léegi def yëpp maa ngi koy gis ci dog yi waaye du ci am pexe danga gis àgg sax ñoo xam dañ ko jël sax di ko wax loo yooyu yëpp nag doon lu mat a bàyyi ndax fi ne lépp loo yëpp ba ràññeeku ci lu iblis jëmam day ñëw topp la te yaakaar daal surtout waa kenn ku ne xam na ne bind na boppam loolu waaye moom na daa jàggi da koo jàggi dóor ko ci suuf waaye te iblis tam nee woon ko du tax ma bàyyi ni may def mooy damay bàyyi ba sa ñoñ yi ci lay topp bu ñuy jëf ci ñoom lay topp ku kuy jëf mën na ko tudd ko tuddool mën na ko tuddool kee fi ne gis nga ki woo Sëñ Tuubaa mbira na muy doxee ñëpp a ngi ci nag ak ci suma kenn tam nag waaye kenn ko ne xam ne ku jàngat ko ne yaa ngi gis ci tudd Sëñ Tuubaa bu def di dundee da leen neex ca teew seen mbir mbiru saa yéen ma ngeen mel na mu war a mel ma ngi am teraanga ju ne loolu lépp ndax situation bi tuddoo moo tax waaye nag bu mu tax mu ko ñu naagu nag ci fiir gi kon nag fiir gi nañ moytu mbokk muy raxa ci ñoom nañ ko tëb jàll kon ñu wattandiku bu baax baax ci li ñuy def ñu bëccee gis suñu bopp benn yoon ndax nit ñi moom saa boo jëfee lu baax si mbataag waxta ko léegi mën nañoo ne jërëjëf waaye su ab saxaanaamee benn lu mu néew leen du la dootu la baal dara day mel sa mosoo def dara kon nag ñun waaye ñu doon ndokk ñu ba jëfalul ngir nit ñi dañ jëfal kan suñ tubaab jëfal suñ tubaab mi jëfal nag ku am ak pay la te ñëwut bor kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax baax suñ kenn kàttan su ko defee màggal gi dëgg la nee na ci nawet xam naa nag am na ñooñu ay baykat lañ loolu moom wér na suñu mii ma dend waaye am litu xabir di tubaab koy ñoom xam naa lu ci ëpp ñoom ba léegi ña nga tool yi ñeneen tam xëy na ñu ngi ci tool ñoom tam am jam yoo xam tam ñu ngi fii jeneen tool tam xëy na yoo xam tam bind ma leen nekk ca bagage yi tam buñ ko fa bàyyee xëy mën naa tax wal dara ki ak yor marchandise boo xam nekk wóorut ñoo ñëpp li ñu bëgg mooy yeex a ñëw teel a wàññi ko loolu lépp nag baax na waaye nag bu ñu fàtte ñu ne ay soldat Sëriñ Tuubaa lañ suñu sañoo liggéey bi ñu ànd ko mu mat sëkk dëgg la fa nu njëkkee ba xam ne xam ne dana jiitu ah, xalal leen xalal leen yoonu ba su ngeen ñëwee dara bañ a jafe diir ba ñu ànd ko ak yéen itam nag bu ngeen delloo nag ñu mottali sax waaye loolu lépp ñu ànd ko bokk yéen yéene ji ak pas bi lu njëkk lu mujj lépp ñoo koy bokk mu jën teyaaba ji waaye nag suñu sañu tam lañ fa def li ñuy def mu gën a liire tuuti ñu bañ rek suñu suñu nee suba ñëw le 17 safar 19 safar tam ñu wàññi ko waat loolu suñ ko mënee wat ni ko mooy li gën suñu sañoon daayira yépp bala ñoo bala ca benn jariñ ko ñu bàyyi ba ci 20 safar 18 mooy safar bi 18 mooy bisu safar bi 19 20 suñu Bass Abdou Khadre mi ngi xam ne mooy kàddu si amul mu taxaw at mu jot mu di fa ñëw di seere si liggéey turu sëriñ bi mu fekk fa ñëpp su boobaa ku mu neex mën ngaa bañ a reere incha allahu rabbi da ci des incha allah dañ ko àggale wa dana fekk itam màggal gi xaw a sori dëggal nag lii may waxit nag xam naa ne dana métti ci ñeen nañu waaye nag nañ xam ne gisee suuf fenn ci àdduna ku koo xam daa liggéey Sëriñ Tuubaa bañ raw ko amul fenn nañaan pas rek ca xam ne lii ñu def Sëriñ Tuubaa bi ko defal moo ko moom defaluñ ko kenn kon ñoo ngi ñaan loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax di leen fàttali tamit ne liggéey bii nga xam ne ñoo ko bokk ñun ñëpp liñ ci def mooy gën a bennoo ci suñu biir di leen jaanti mu rafet ginnaaw lu ëpp ci lu bari ci yéen bokkoon ñu ngi dëkk dëkk bi ku mel si Balla Diouf itam ximatu eh, raw nga xam ne mi ngi fii sincère nekk fatu xafaar di liggéey ca sàppe sa defe naa ñoom jariwul sax ñi dem ñi ñëw ba Touba sàppi sam benn jafe-jafe wartuta wartuta am moom ndax lan mooy ñoom bu dee possibilité buy tax ñu mën a jëflante am na te mooy ñoo bokk dëkk bi beneen doole itam téléphone yi itam dana jàpp na lu bëree bëri kon jërëtu ñuy xaar ba agsi foofu noonu itam lan wala ba déedéet yëpp kenn ku ñu ne mbooloo mi nga seqal liggéey bi da leen leeral liggéey bi ñu xam ko xam nañ ci wàllu doxe message message bi àgg fépp ci képp ku liggéey si waaye nag ñu bañ a nag jugo fii rek ku fekkulu jotaay bi doo ci dara ndax loolu gënu doon sa wax naa ne buñ publier liñ fa jële waaye terewul man ngeen tënk lenn ci liñ fa jële dekkal ko ba mu jekk ngeen mën ko ñu ngi seq liggéey bi leeral leen loolu tamit leeral leen ko seen leen ko leeral la yéen wàcc ngeen koo xam ne rëcc na ba publier ko soo ba engagé kenn li li nga xam ne moo gënatu mooy jox leen ko ba noppi leeru leen ne lu war yem ñoom la ñu publier waat ko su boobaa moom yéen mos ndax leeru leen dara su ngeen ko leeral nag wàcc ngeen yéen kon nag na ngeen leen tënkal liggéey bi leeral leen ko ba xam ku ñëw jumaa ji dana xam li mu war a jëflante waaye yéen wul ñu wax fi li ñu wax ba jógee fa sori yenn fi ba ngoon waxtaan njëkk ñu ngi def tam ñu def ay séance yu bëree bëri doo ko daje fii ba noppi jógee fi dem ba fa ñu war a pratiquer ma am ay soox soox ma gis benn jafe-jafe ab sama gis benn jafe-jafe dem wax dem wax élément ba ci buntu ba mu ne ko tëgg woon suñu baal la ma teg mu ñu indi mu ñu ànd suñu baal baax suñu baal ne ko day genn waaye naa wax ak moom def naa loolu wutu demee noonu kon gan baatu gan baatu gan la moom doo lay nañ feex ba ñëpp yëg liggéey bi li jaadoon mooy su yàqee Tuubaa ci jumaa ji balaa kenn liggéey yéen ngeen day la mbooloo mi wax leen lii ak lii ak lii ak lii képp koo xam ne fekk doon jotaay wala am lu ko ci rawoon mu mën koo fàttaliku ngeen boote di leen bàyyi xel waxtu wane tam nag su ko defee soo liggéey bi lépp lu ci jafe-jafe mën nañ cee mucc xam naa di jox suñ kàddu rek ci santaan daal di xam ñu ànd liggéey bi yëpp rek moo xam Moukhaddamatoul Khidma bi nga xam ne moo ne fi teewal man nag ñi ma àndal muy suñu Maxtaar Kant ak seen bi Mbàkke mi nga xam ne mi fi teew ci turu commission culturelle bi ngir ñoom ñoo yor lépp loo xam ne mooy mbirum jàng ak jàngale ci daayira Moukhaddamatoul Khidma yaakaar naa lépp fi gaaru ñëpp dégg nañ ko kaddu yu am solo la yoo xam ne lu mën a jëriñoo la ba noppi itam tënku itam indi ko indi wu mucc ayib ñi ko yaasi loolu doole xam-xamam dina yaatu dëndam ak mboolem ñu bokkal commission boobee nga xam ne seen mbir mooy loolu ci njiitu Sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno di sant itam waa communication Sëñ Abdou Khadre Sëñ Matar Ka ñoo yebal fii seen caméraman bi ñu ànd ak ñoom tam góor bi Sëñ Bàcc sëñ Blaat Bousso nga xam ne mooy secrétaire administratif bi mooy tam mi ngi teew ànd ak ñun sëñ Blaat Jatara sëñ Mun Njaay Mbeng ak sëñ Fallu Sàmb yaakaar moom waa Louga miin nañ leen ca wa ngi dalay jàmbaar yu am ak sëñ Baye sëñ Afia ak sëñ Assane Seck ak sëñ Abdul Xaadir Bousso yaakaar naa su fekkente fàtt naa kenn kon ku des ci man ku tuut rek ku ci maanaam kon na ma baal Fallou Gassam jox tuuti naa ko ci waañu ak sëñ Fallou Mbacke sama turandoo bi nga xam ne maa ngi moom daanaka benn la ñuy jaawale bi Fallou ak Fallou Diogo daanaka benn dara koy tudd tudd koy des di santam sëñ Xaadi bi nga xam ne moo doon coordonné liggéey bi sëñ Xaadi Tachir ci loolu tam ndax ñaar semaine ba lu gëpp yëpp li ma doon yit yëpp mën naa ne yénelut nelawut ay weer tam ci ginnaaw la tam la waajal màggal gi ngir bëgg lépp jàpp kon na nañu ko sant bu baax a baax di ko wax ne kon jërëjëf di ko soññaat tam ci li ci suñ kanam bu ko cee góorgóor di ko sant ci lu weesu lépp lu si seetlu baax a rek ndax kenn ko ne xam na ne ay taxawaayam itteem jëpp lu jëpp mën na ne jox na ko jumaa ji dem dama dama sa man kii ak njabootam baa ñu gis léegi waaye ndax kenn ko ne xam ne léegi lépp moom ci temps mel ne jumaa ji la ko ci la koy def waaye loolu incha allah du du du du ko réccu kon nañu koy ñaanal yàlla barke sëriñ bi suñu borom fay ko lépp rek bi ñëw ba dañu nga xam ne kenn la ci jëwri lii doon kilifa itam ñu ànd moo ñëwee itam fekk fi suñu bokk yi ci Dakar ba ñoom suñ Jibril ñoom ñoom ñëpp ñu fi nekk damay bañ tudd tur yu bëri ndax dafa xaar ñu ànd ak ñoom ci taxawaayu liggéey bi waaye itam waa yëmbal muy ñoom suñu góor sow waaye Mouhamed Xidma yëmbal waaye itam waa Mouhamed Xidma Louga tudd naa suñu xaaj ëllëg euh, lañ lañ jafe aane am la xidma ji na leen kon gaaw leen ngeen dugg àjjana kon na ñu ngi ñaan yàlla loolu ji nga xam ne moo suñu Tuubaa jigéen euh, ji ak masalik ñu dajeeg loole ci am yeex lool nag boole ci ndax damay fàttali ko benn dongo daal bu nekkoon daal si bu nekkoon kase bu ñëwoon dongo daal bu dongo si dafa nekkoon daa ñëwoon daa ñu bar daa ñëwoon foofu rek jumaa ji ci penc bi baro butu ko si saaliw boo si saaliw am benn paa bu jeex xasi daan passage janaa ngi ne jiwatu dongo ku ne ko bëgg na dem àjjana bay dagg paas waaw waaw nag bëgg naa waaye damaa damaa jënd jot a guddi ndax dañ ma di gis daal ba ci kanam ak kanam doo ko jubbi nag di ko liggéey laal kon nag ñoo ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne njumte la suñ borom jéggal na ko lépp loo xam ne aw yiw tam bool ñu wasaare ñun ñëpp di leen jox rendez kon daal ne màggal gi agsi na li ngi liggéey bi nag yéen daal yi lim lépp na ngeen xam ne suñu ëpp sama lum mi nga xam ne man bi nga fi ñëw maa ngi ñëw en tant que commissaire organisation bi nga xam ne mooy tax bi bépp loo xam ne aju na ci liggéey bu xam ne xidma waaye ne liggéey dañ ko séddale ci yu bëree bëri nag bëgg nag liggéey bi nos gi nos ñëpp maasa ci woy ndax li tax ñu def ko doon mooy dañu bëgg coordination bi doon benn ndax xam ngeen ne ma xam ne xel ma mboolem liggéey yépp lu ci ne am lu mu ko dénk fi ne boo demee tey ci parfum ba sëñ Mori moo ca nekk wax yooyu yëpp dañ ko dëxëj rek bàyyi lépp biir si sim samat mu mën koo coordonné ndax liggéey mën a ci loxo ba magal gi jeex gàññ itam lu ngeen di gën li tax itam su ñëwee am wàccuwaay dañ jëlee sëñ Fallou Mbacke rek ndax sëñ Fallou kenn ko xam ne bi mu jumaa ji dafa dagg minbar ba minbar fa imaam ba nekk ñu ngi ko darajaalee mooy mag ñi ak gan ñi nee nañ ko bàyyaat mag ñi ak gan ñi kon yéen tam su ngeen ba kon yéen tam su ngeen ñëwee liggéey bi dañ leen jaatal bokk ak yéen ñooy ñoo ñooy ñoo ñu ne yéen ñoo ci yem kepp lii suñu ndam daal mooy ñu àndoo rek nekk benn kenn bañ a xàmmee secteur ndox ma kenn bañ a xàmmee secteur mbale ma kenn bañ a xàmmee secteur aayam njaay ma fépp foo xam ne am membre yebal nañ ko fa sa waakat yi sa sa ñu daal yebal na la fa sant nga def ko ndax loolu mooy sa mooy résultat daayira bi la fa yoon mais su dangaa la demal ne la monté la fa yoon nga rocc ko sooba daayira ba da ko xaññi résultat kon yaatuñu wakkaan àqan su fekkee wakkaan àqan dañoo ay doon ay jàmbat ba ràññee leen ci ñu jox leen menn mbedd ne leen seera leen ko ñu dem ba ca biir ñañ fa tegoon am ci ñoo xam ne wuut nañ ak leen waxoon rocc ko naa dem defi leneen soo day jur jafe-jafe kon wakkaana xal lan lañu amoon yàlla ko xaj kon nañ bàyyi xel ci ne nit ki spécial bi mu amee daal ci liggéey bi na xam ne mooy lépp loo xam ne engagé wu na ko na ko def jumaa ji itam ña ñëw suñ tudd na ko léegi mille six cent personnes na bëriwul waaye kenn ko ne xam na ne ëpp na ci liggéey kon mi wax dëgg ne lim bi moom tubaarikàlla li am solo nag mooy mooy rek ñu saleen la ñu war def rek ñu def ko bu ñu ñëwee xam tam jumaa itam ñëwuñ fa du ab dal ci ñun waaye fu ñu fu ñu dalloo la ñu delluwaat léegi di awante sin bi rek la waaye du ab dal ci ñun loolu dañu bàyyi xel bu baax baax ñafee ñëw na doon ñoo xam ne nag liggéey képp mën tax xam naa kon maa ngi jégul ci guddal di lépp loo xam ne des na ci moom nga ci àggali woo ko euh, xëy na mu doon dégg dana mën a waaye daal nañ xam ne liggéey moom tàmbali na ñu ngi leen ci xaar tam di ñaan la weesu ca ñu am ca ndam yi ci kanam yàlla nañu ëpp ay ndam foofu ca loolu nag dara waralu ko nag lu may teg situation suñ mooy mooy mooy bu mu ñu ngi ñu ngi tuubaat bu baax waaye ñu ngi leen di sant bu baax sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaw sant nañ leen bu baax a baax a baax di yàlla yàlla na ngeen dajeeg tawféex ñu ngi leen di ñaan seen aajo yëpp faju ci barke Cheikhul Khadim di ñaanal sëñ kilifa gi sëñ Fallou Mbacke mu yàgg fi lool ak ñi mu àndal képp ku fi ñëw aajo boo fi indi yàlla na ko suñu borom faj ku fi indaale jàngoro yàlla na ko suñ borom saafara sant nañ bu baax ci turu jëwrin di sant tamit waa daayira xidmatul xadim bu Oyofoore ndax boobu ba léegi bàyyi nañ seen yiite yëpp ñëw nekk fi man de li ma ci doom dolli rek xëy na kilifa yi xam nañ ko man dafa am jàngat bu ma ci am mooy ñun ñu fiy daje di liggéey ci jumaa ji war nañoo xamante man loolu laa gis damaa gis ne ñun ñii ñëpp ñoo bokk benn objectif muy liggéeyal sëñ Touba kon ñun ñii kenn ku ci nekk war nga boo dajeeg sa moroom nga xam ne diw mooy diw am nga numéro war na nga sol sa daal dem ba këram seeti ko ndax dañoo dekk ay taalibe war nañoo jàppante ngir sëriñ Touba. loolu daal laa ci doom dool yi maa ngi tuubaat bu baax di jégalu jërë ngeen jëf rabaayi fi ixdaami xayril wara bada wa fi kulli sahrin zayd rubhi wa fi safar